ala wa barakaatuhu dafa mel na kaddu yi may wax du ndax dafa mel na ñi jot a wax ñépp dañu ma nuyu te nuyoo sunna la waaye raddu salaam farata la wa ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsana minha aw rudduha su ma mënul joxe bu dàq bi ñu ma jox ma jéem joxe bu ni mel jël nuyoo boobu may delloo ci mboolem ñi yëkkati kàddu doore ci imaam alaaji ahmad boro njëgën mi ubbi jotaay bi di sunu bàyyi jiite ligue des imams et des ci région de Thiès ba fi kàddu yi jaar ba agsi ci Mouhamadul Moustapha mu Serigne Babacar mu Pape Alxaaji Mansour mu Seydi Xaaji Malik bi muy wax ba magam agsi alxafid bi mu agsee mu taxawal kàddoom delloo ko magam magam jox ko ndigalu waxal mu wax la muy wax Cheikh Al Hadj Malick yëkkati kàddu yi mu ci teg te lépp di benn kàddu ma delloo leen nuyoo bu baax sa mbokk sa cousin sa frère di Seydi Cheikh Ahmed Tidiane moom Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour mu seydi Aboubacar mu seydi Hadj Malick sëriñ Assane si mi ngi nii jiite délégation bi ànd ak alqaadi ànd ak fa tabarakallahu xaaji Moustapha Touré ñun xaaji Ablaye Lo xaaji Mor Mbay ak ñu nu àndal ñépp jógee kër Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour bi kàddu gi deme sëriñ Assane daf ma bu sëriñ Moustapha waxoon te sëriñ Maodo yegsiwul du ñu wax ndax kàddoom mooy kàddu sëriñ Cheikh ndax kàddu xalifa bi la yëkkati mooy sama baay di sama nijaay mu ni ma xaaji Malick magam ñëw wax mu ni ma kon kàddu ju jóge ci sëriñ Cheikh du jóg ndax mooy kàddu sëriñ Maodo ma xamal leen mboolem doomi daara yi teew duma lim ñëpp waaye si dinaa la seedeel sëriñ Takko Mbakke mu Cheikh Mouhamadul Murtada ma seedeel la sëriñ maam sëriñ Mbakke mu Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Baara mu Cheikhul Khadim mi ngi nii toog sëriñ mi ngi nii toog di sëtu sëriñ Baara mi ngi toog ak sëriñ Aliou Seck mu ngoraan ak Cheikh Birane Birame mu ngoraan di sëtu Cheikh Béthio Thioraud Gaynde Ngoural te ma xam lool seen diggante ñuy samay wëllëgee ñu ngi ñuy toog maam Serigne Mbacke jërëjëfati kër Alaaji Ahmad Boro du ma wax ndax ñëpp ñëw nañu sama sëriñ bi ma jàngal alquran mooy sëriñ sama bàyyi jox falaa mokkale alquran at bu mu xat-xat dina bëtt lu ne ñëw toog ànd ak sëriñ Moussa jërëjëf ma seedal la ni soxna Ayda mu sëriñ Babacar si Mansour bi ñuy dugg ci tànt bi la fi jóge ñëwal na boppam ba fii yëkkati taraangaam ñaanal ñu ta dem ni ma ñoom njaboot gaa ngi ñëw ma ne ko si loolu doyoon na mu ne ma fu ma jaar ñëw taxaw nga gis ma rek ma dem léegi la fi jógee monsieur El di la wax si këru daara yëpp teew nañu dafa guddi waaye fi ak muxsiniina mooy alxaaji yuusu jóob mansuur mi toog majma al bahrayni allama al huda faxra al ashirati nuzat al akwaan moo jàpp loxoom ak sama loxo 98 boole ñu te ñoo ngi 2019 mi ngi ñuy toog ànd ak njabootam yëpp jóge Alaaji Doudou Ndiaye Presta mii toog di suñu doomu baay mi ngi mii toog moom bu gàmmu gi desee weer lay ñëw jëm ñaari weer ni ma sama participation ma ne ko su ma ko lekkee damay tooñ Doudou téye ma koo téye ak bu ne mu la mu def mu yokk mi ngi ni toog muy Alxaaji Xalifa Kan ku ko xam-xam ma tudde na ma doom yaramam moo ko tee mën di teew soxnaam ak i doomam ak magam ñoom ñëpp ñëw Serigne Fall ànd ak ñoom wuutu leen mi ngi nii toog ka ca des muy alxaaji Keeba Njaay faalul xayri du muqaddamu bay alaaji Umar Ñas doomam ci man la mokkale alquran doomam am na doomu tudde ma ko ba gàmmu gi dee gàmmu gi ba tey carte yi ñii ñoo ci ne at bu ne xam nga lu ñuy soppi date bi amul leneen man ñoo ma ko sosol le ministre Alioune Sarr wax nañ ko olof nee na bu daay tàkkee gisoo bakkan la fa tax préfet ngi nii toog ànd ak gouverneur ak délégation bi daaw ñoom ñaar a toogandoo fii at bu ne dinaa tukki ba gàmmu gi def ñeenti fan moom mu ne fi di organiser di woote réunion ba gàmmu di jot yoon dab ko soxnaam madame Sarr Khadija madame Seye délégation bi mu àndal jobaas kenn desu fa cabinet ba Dakar ministère kenn desul ñépp ci suba ba tey ñu ngi fi Aline sama digg moom amatul wax day man may moom gàmm gi ñoo ko doon baasadoo waa gordo yooyu ñuy wax benn groupe la boo xam ni ñoom ñépp ay cadre lañu ay kilifa lañu ci réew mi waaye ay taalibe Cheikh Tidiane ay kilifa lañu ci réew mi ñoom ñëpp su ma leen limee kenn par kenn waaye ay taalibe lañu ñoom ñu nekk étudiant nekk Bordeaux ànd bi ñu ñëwee fii ànd boobu may jóge daara ja ñuy jóge université bu ñu ñëwee ñuy ànd ay 86 dama ñëwee Mbour 1 boobu groupe boobu yëpp ñoom Birahim Pape Birahim Pape Niang seeni soxna ñoom Pape Niang ñoom Pape Ndaw imam groupe bépp ñuy sunu benn group boo xam ni xaaj ñooy ànd man ak ñoom ñoom ñépp ñëw nañu gouverneur jërëjëf maa ngi lay yóbbante cant gu wér di jiitu loolu kii toog sa wet xaaj Malick sa turandoo la mooy alxaaji Malick Ba mu Cerno Jibi Ousmane di rakku xalifa bi Cheikh Ahmed Tijani Ba wuutu si xalifa bi ak délégation bu rëy Bambilor daanaka mën naa ni ñu bëri tey fi la ñuy fanaan waaye Xaaji Malick nii waxuma wuutu gi mu wuuti xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane waaye waaye sama digg ak moom li muy xaj yépp ba dina bëtt lu ne bàyyi tukki yi bàyyi rendez-vous yi bàyyi audience yi ngir teewe bés bi te bu ñëwee day puus toog ci pële fauteuil yu bagam sànq bi Serigne Moustapha agsee daf ni ma may organiser may jóg mu toog fii ma ne ko Serigne Moustapha bañ na nee na ci siis bi lay toog Haj Malick jërëjëf li des gouverneur ma di la wax ni jërëjëf baat bu gàtt la waaye ku deful dara du ko dégg li war lépp te ngeen mën ko def ngeen ko Moustapha Dieye nii di suñu frère directeur fa tabarakallahu nekkoon fii di délégué régional yàlla jëlee ko fi tey mu nekk dakaar di kilifa di sama frère ñu bokk gànjool sànq bi courant bi coupé am ñu ma ni ndax doo ko wax Moustapha man leen duma ko ko wax ndax fekke na ko duma ko ko wax ndax li ma wér mooy lu war a am la day coupé waaye bu dee lu ñuy lu ñuy defar léegi moom day ñëw waaye yàlla rufiatil aqlaam wa jëfati suhuf xalima yi yàlla binde woon heure bi liy xew pare na man leen bu doon nag lu ñuy am fu ñu coupé am fu ñu taal xam naa ni fii moom dinañ ñu taal man leen du ma ko wax dara ma gis mu ne ci téléphone bi rek ma xam ni ca la nekk laataa may gees su préfet ndeke moom itam ma nga ca téléphone ba waaw ñu yilif dëkk bi bi fi courant coupé man lu ma ciy wax waaw lu ma ciy wax man wér na ma ni ñu ngi préfet ne ci waaye ñu yàggul yàlla def ca sutura mu dellu si jërëjëf ci yëf ci la bokk waaye ñu xamal lañ lépp loo xam ne mu ngi jóge ci ministre de l'intérieur wàcc ci basiiru wàcc ci si chef de yi amu ci lu tardé qala jalla ilahuna la in shakartum la azidannakum amul ci lu tardé amu bi mu desee ñetti fan son excellence président Macky def na appim ci gàmmu ji woo na yónnee fi ñu ni ma lii président ko def ci gàmmu ji benn waaye daf ma ni Idrissa ren di ma tooñ ni ma ban marto ngay dóor ci gàmmu ji ma ne ko marto ba ma dóoroon quatre-vingt-neuf bi ma koy sos dóor ko quatre-vingt-dix dóor ko onze douze treize quatorze quinze seize dix-sept dix-huit dix-huit dix-neuf deux mille ànd ak moom ab ba deux mille dugg un deux trois ba dix-neuf ma ne ko marto boobu ma doon dóor lay dóor mooy def te yàlla tax gàmmu ji su dul woon yàlla jeex na ma ne ko ànd naa ko nguuru du Diouf mu dem bi ma koy door ci nguuram la ma ànd ko nguuru Ablaye Wade mu dem la ma amoon sañ koo sant ñooñu di leen gërëm mu daje ci nguuru président ki mu am ci taxawaay noonu laa koy waxee jërëjëf ku la defal lu mu gàtt gàtt nga ni ko jërëjëf def gi du li mu joxe appui bi du loolu rek tey jii bu ñu ne woon tànt bi du am. ñu joxe ndigal ministre de l'intérieur mu wàcce ci gouverneur waaye waaye lu ma jege jege préfet lu ma bàyyi bàyyi xel bu ndigal jotee ne nañu arrêté gàmmu gi dinañ ko arrêté kon loolu dinaa leen ci ni jërëjëf boole ci appui bu dëgër jóge na présidence jaar ci directeur cabinet ministre d'État wàcc ci adjoint fa tabarakallahu ñu indi ko teg ko ci sama loxo kon loolu mu jaar ci Demba Diouf mi adjoint bi ñu indi ko moo ko indi loxoom ak sama loxo xanaa loolu day leer jaarul ci kenn loxoom sama loxo ak kaddu yam ca teg kon maa ngi koy wax président jërëjëf li des mooy dama ni woon waxtaanu gàmmu ji bennoo la waaye li ma doon wax sëriñ bi dafa mel na dañu dege muy Hadj Malick mu wax ko ma seedeel la xalifa bi Serigne Babacar man Mansour keroog ba ma demee ci moom mu ñaan wax yónni Moustapha mii fi jóge di suñu jarbaat yónni ko di suñu doom mu indil ma teraanga fii ci bés bi luy dund xaaj te ba mu fi jógee laa la wax mu indi ko boole ko enveloppe bu rëy ni ma gàmm gi suñu gàmm sa turandoo sa baay xaaji Malick si Maodo kadaalika noonu def la mu def jël la mu jël ni ma nanga ko gàmmoo ci guddi gi ni ma nanga ko gàmmoo ma seedeel la sa sa cousin sa frère toog ci saalu baayam te demul fenn di Cheikh Ahmed Tidiane Sy Mansour yónni Moustapha Touré bii mu jiite délégation bi Alaaji Daam Habibu moo ko recevoir nag wi mu indi moo ëpp ci gétt bi enveloppe bi mu joxe duggi na ba yeewi ay gan moo tax ku fi ñëw te ñu war laa may xaalis bul ñibbi te mayuma la ñëwal ma may la maa wax loolu nag man la engagé ku fi ñëw daal yow nga yëg ne lan laa war a may bul ñibbi tam mayuma la ñëwal duma daw duma daay insha allahu taala ma wax la ni ma wax lañu si Malick waaw ku am kilifa mu mel noonu waxuma ñaan ya waaye jàpp ga jàppale ya ndax du jaadu soo dajee say nawle nga seede ko li ma ci mën a wax ak yow ci téléphone lépp wax naa la ko lu xëy ñëw ma woo mu boole koog yabal ñi muy am ñépp boole di ma woo boole koog di ma digal boole koog ku mu am léegi la fi Thierno Ablaye Sow bu sinja jóge te Serigne Cheikh ko ni demal sama gàmmu la léegi la fi waa Ngomeen jóge te Serigne Cheikh Ahmed man Mansour moo leen jox carte ni sama gàmmu la ñi mu am ñëpp ñëw nañu ñi mu am ñëpp def nañu ndax duma ko seede bi des nag mooy ñii samay mag lañ Mouhamadul Moustapha moog Mbaye Guèye nii li mu doon ci man la Mbaye Guèye doon ci man EMG moo tax auto EMG nañ koy bàyyi xel néew na paan te du la sonal oto bu ma nit di jox na ko jële EMG ku ko mënul jëlee baal ma rek nga téye sa oto baal leen ma rek te yàlla tax parce que oto dama seeti auto EMG yi boo ciy tukki man damay defee ni tukki ma dama ciy jógee Dakar dem ba wili kor mel na damaa génn kër maam alaaji rek dugg kër Cheikh mais mbay loo def ci auto EMG kon bàyyi leen xel automusée man daal neex naa yal na yàlla dolli jàppale su ko defee moom moom gàmmu gi moom li mu safaa mii doon ci man si moom la doon ci ñun ñoom alaaji njool ñoom alaaji Modou Gueye alaaji Papkan seen groupe bépp ñëw nañu lu ne mu def ko ci fa tabaarakallaahu seniko Ablaye Dia kadaalika noonu moom de ñëw effacé wu bu paree def li muy def dem yoonam Thiès nag ñoo am sunu jigéen muy ministre Adja Ndeye Tické lu jiitu ministre bi sunu jigéen la sunu soxna la sëram bu mu bokkal ndey ak baay la sama frère bu mu bokkal ndey ak baay di denc waaye sama xaritoog kooku moo jiitu sama xaritoog jaxeer moo jiitu sëy bi Adja Ndeye Tické yabal koo xam ni ci gàmmu ji la daan ñëw muy muy borom këram di Adja Nduuti Diop bu jiite délégation bi xalifa jiitu si na ànd ak ñoom lu ne Ndeye Tické def na ko tey lu ne jéem na ko ngir fekke si bés bi ma ne ko ma dem la ministre comme comme ministre Alioune Sarr mission ka dab ba mu wuute soo wuutee kenn du la yedd demal fu ne nga ne fa yàlla rek ko ko mën ngant day am demal service ngeen nekk kon ma seedeel la ni maa ngi koy sant di ko gërëm mbooleen ñi nekk ci tànt bi sama jigéen Adja Aïda Silla di wayjur Abdoulaye Silla mu ngi nii toog ànd ñu bëri def lu ne ci jotaay bi kii toog di Abdoul Aziz Sarr bi may jàng ndar kër Serigne Moxsin sunu ñaari maama bokk ndey ak bàyyi muy sama frère falaa nekkoon mi ngi nii toog kon si comme dañu xaw am tuuti retard duma ma guddal jigéen ñi toog mboolem dawaayir yi su ma limee duma juum dama dul matal ndax daayira yi ma yor yëpp ñu ngi nii rawatee fédération asxaabul kahfi waaye su ma limee du ma matal mbootaay yi association yi réew mu ne fu ne nit jóge na fa ñëw waaye ma sant soxna yi ma yàlla booleel ci liggéey bi muy Adja Siré Diop ak i bokkam muy Hadja Mari Seck ak i bokkam muy xajja fat saw ak i bokkam muy xajja ayda jaw ak i bokkam ñoom ñépp kenn ku ci ne def nga lëlëmal ngir bés bi jàkk kenn ku ne am say bokk li desi mooy kii nga dendal muy Babacar Diouf di Mbaye moo yore résidence la Dior hôtel boo xam ne duñ fa jaay lu ñuy tere am jàkka néeg ya sedd télé ya leer wifi ba gaaw te du la sonal man de su may dal lu hôtel boobu résidence la joor lay dem léeg nga jël sa njaboot dem résidence la joor di nga wàcce sa kaamil te doo sonn ndax foo gëstoo kaamil ngay di teg résidence la joor foo gëstu daj kaamil nga ni mënumaa lire arabe mu ne la bu français ngoo nga ne mënuma ko mu ne la bu anglais bàngoo mu ne la mënuma ko nga jël benn bi di ko teg mu naan la bismillahi rahmani rahim xanaa fa la jàng yëpp moo tax benn waay keroog dafa ma ne dama la bëgg a may après gàmmu gi nga noppalu ji benn hôtel ma ne ko dafa may sonal man résidence doy na ma te li ma ci dafa jege fépp jege jege na aéroport ah, te jege na géej gi te jege na Tiwaawan te boo bëggee dem Touba boo tourné yow autoroute ila Touba kii toog sa wet gan yëpp ci bi la ma sante suñu doom Maxtaar mi fi ba damay woote dem woote rek ñu dem résidence la jot gan yu bëri ñu ngi fi te lépp du benn bu ne noonu la nekkee ñun kon nday yàlla boo jéem loo tëlee kii toog sa wet Ablaye Dieye yore mouvement siggi jot na dama ne kii sama ratt la ci deret maa ko dalal alquran ci tool saasi rak ko xalifa jéey bi nga xam ni bay xalifa kenn la ci moom kenn la woon ci moom Ablaye mii di doomu Cees bëgg Cees di jéem lu baax si Cees na Cees yépp xam ni kii sama xarit la te sama rakk la waxuma defam ci gàmmu gi bàyyi laa ngi moom dafa moom bàyyi ak ñoom bàcc jeey ñoo yem ci gàmmu gi ci man ak tafsir abdourahman ni tafsir abdourahman di def jëngi nag fare gàmmu gi firi gàmmu gi saraxe gàmmu gi noonu la Ablaay def da lu bëri ni ma sëñ bi luñ ci war a def rek wax ma ma def ko ma ne ko waaye Ablaye moom xam nga wax ji yàgg boo wax ji yàgg mu mu jël la muy jël rek jox la mu dem man ko lii day gàttal wax kon Ablaye jërëjëf yaa ngi nga àndal sa yéene si Thiès ci réew mi ci dëkk bi yàlla ko yàlla mottali ñu ngi lay sant bu baax a baax de seede it maire Talla Sylla Papa Diop maire bi muy dem maa ngi sant monsieur le maire Talla Sylla tribune bi ak li mu mën yëpp def na ko Pape Diop noonu ànd ak premier adjoint Cheikh Lo ñëw nañu wër koñ bi fu ñu dugg fa parce que man bu nit ñëwee war a def te deful du la wax dara damay dem def li ma war a def ku ma woo ni la nàngam soo yéexee di ma woowaat ni ma ndax ñu ñëw suba ma ne la pare na ndax man foo ma fekk maa ngi plan B fu ma tegee A B ma nga ca wet boo it A yéex ma génne B man kenn du ma waaye li leen war yépp si. ma seedeel la ni ànd nañu def ko Adja Aïda suñu jigéen tudd nga ko mu ànd ak boroom këram xalifa booy ak sama doom Fatim bi ñu bi ñu dooree ba tey xalifa booy fu ma gëstoo mi ngi sama wet ba gàmm gi yegg fi mu yegg bi des ñu am koo xam ni wax naa ko sànq sama doom la sama sëriñ la te day téele ñëw te te du te bax mu da lay ñëw ci gàmmu gi de léegi de tudduma ko muy soxna Asiyatu mii si Malick moom maam Malick mu Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Jawi mu Seydi Aboubacar man maanaam maanaam nii laa ko mas a xamee bëgg diine bëgg kër maamam jéem a dox doxinu maamam ak ay yàgg ci gàmmu ji du fi gande bu ñëwee fii du jommi du jaaxle si Malick jërëjëf gis naa jàpp ji jàppale gi taxawu gi yàlla yàlla jàppale la bi des nag xaaj dañu am benn frère bu nuy wax alaaji moor Gueye sopp na bi groupe sopp na bi yëpp Umar dem yàlla na ko yàlla dolli wér groupe sopp bi yëpp laa wax ànd nañu ak moom dul sopp na bi yëpp waxuma ay jëfam ci bis bi waaye waaye alaaji Mor yàlla boo gaaw a moor alaaji moor taalibe la buy signé Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam lay signé daara taalibe piir baayam maamam gëmuñu kudul Cheikh Sidi Aboubacar gëmuñu kudul Seydi Hadji ci kër ndëri gii baayam lu mu mas ñaan ci ayatul kursi yàlla sama jigéen ndey tuuti ay dara maa ko jàngal muy sëtu yonent bi di doomu Chérif Bachir ay dara sa mos maa ngi koy ñaanal ak mboolem yi ñëw li des nag mooy mbokk yi mbooleem famille bi mbooleem soppe yi mbooleem dëkkandoo yi Souleymane sant nañu ñëpp Cheikh Ahmed Tidiane jii tamit toog de xalifa Baye Alxaaji Waseynu jiite ñu bokk Baye man man man mënoon naa sax bañ a wax gees fu mu tontu gan yi ñu ñaan ñu ñibbi kii moo jiite léegi timis Xaaji Yusuf kenn la ci maanaam maanaam li ko gën a soppe dafa dem bilaadul arab jàng ba pare ñëw jël lépp dox doxinu man bu burdi bi ubbee ba ba ñuy tëj bu sëriñ ceeb bi départ ñoo ànd mi ngi ci wetam jiite jërëjëf waroo sa bàyyi bàyyi laaj ma sëriñ jiite ci kër sëriñ Mouhamadul Mansour nga mel nii nga mel ci xadara Malikia jërëjëf El Hadj Keba dara ump la ci ci lii may seede xaaji Yus yàlla nga wér te yàlla nga gudd fa ñi tawat te ñëwuñu te daan ñëw yàlla ñu wér sa njaboot ji wax naa la ko sànq ca saal ba lii may wax dama ko waxtaane ca saal ba ak ñëpp moo tax mënoon naa ci bañ a wax waaye seede rek la wax naa la ni Daawuda di suñu doom daan na sonn ci gàmm gi waaye ren sonn gi daf ma yéemu maa ngi koy wax sànq ñoon El Hadji Onge ak ñoon major Babacar ñi nga àndal te ñii mu àndal ñoom la mës a àndal ci gàmmu gi sa maam Seydi Hadji Malick nee na jamono ngi ñëw am alal du yéeme am xam-xam du yéeme li te ticc mooy am kóllëre fa fil ifa ifau fa aw foo wa naqdul aadi min fialil fusuur am kóllëre ren ba déwén bawu bawoo ko looloo te ci réew mi alaaji nii loolu la am alaaji yu sumi kóllëre googu la am ñu jógee Norvège ñoom Adja Fat Diouf Adja Ida maa leen di ziar Sarr ak mbooleem Sidi Sidi Sidi Ahmad sa mos ca Amérique yónni ndax baasin di soxna Babacar Ndaw ñëw na wuutu xadara ba ak yóbbante yi ak mbayang jóge ca Washington DC ñoom ñépp maa ngi leen di sant mboolem dëkk yi jandeer tund yi may dem Nord Foire Guney Bett Waar daayira Xayri wal Baraka daayira Muhsinina ànd sopp sa jëkkër groupe sopp sa borom kër maa ko bu def sopp sa borom kër waaye ñoom sopp sa jëkkër rek la jox man leen te ngeen di sopp sa borom kër sax mu tere groupe sopp sa borom kër groupe yaa ma neex ma neex la bala bokk ñoom itam maa ngi leen di sant di sant itam groupe noo ko gisee laa ko gisee ña nga ne toog maa leen di conférence ak bu ne di sant waa rose ak waa vert di sant waa chocolat waa gris waa blanc mbooleem ñi fi teew ñëpp ak fu nu mën a jóge kenn ku ne maa ngi leen di sant sant itam groupe bale nga xam ni mooy borom mbaxane dabaax yi ak engagé ak groupe bale nga xam ni ñooy ñuy sol groupe mbaxane mu weex ak groupe du ñu sol mbaxane ñoom ñëpp ñëw nañu kon daal gouverneur xamal ni daal ah, ñoom ñëpp xamal ni ñëw de la may tëje nag mooy presse bi. benn waaye daa ñëw koroog may def benn programme délégué général Abdou Aziz Kébé def na lu ko war waaye ngant tax ñëwul dafa tukki waaye délégation yëpp ñëw nañ ndax ci laa bokk mu yebal fi ñu bëri. Baye Laye wax na ko. ma dooree sama kër muy RTS li leen war yëpp def nañ ba def lu leen warul Alaaji Moustapha Diop ñëw na ànd ak ñoom nen ne directeur général jigéen ñëpp RTS tey kenn desul ñu ngi nii toog TFM Thiès Prestige nag suñu yëfu bopp la Thiès jëla ñu ngi nii site yi seen Thiès Info 7TV ak ci Thiès Carrefour Média ak asfiya yi ak mboolem askanu bu sant TV maa ngi leen di sant ñoom ñëpp mboolem site yi ñëw nañu mboolem télé yi ñëw nañu ànd nañu jàpp si bés bi bi des itam photographie maa ngi leen di sant ndax yéen dangeen di photo di fayeeku waaw maa ngi leen ciy sant bu baax su ko defee nag. pour ñu tëj jotaay bi ñaanal sunu mag xaaji Moustapha yàlla na ko yàlla doolu wér yàlla na yàlla dolli guddal fanam ñoom docteur Ndiaye Idrissa jabaate moom Idrissa amatuma pour sant ko ak bu ne otoom une semaine la fiy def dama dem ba mag moom amatul ay sant Idrissa amatuñu ko ndax ku ne xam na ma mag moom même taalibe yiy jàng oto ku ñëw oto école Idrissa Diabaté ñu ñëpp fa la ñu jànge man fa laa jànge dama fa jàngee Haj Mari dama fa jàng di dawal xëy Cheikh Al Khalifa Ould Cheikh Hadrami Ould Cheikh Khalifa Ould Cheikh na Cheikh ma gàmmu ji fa mu may ma R9 94 94 R9 ba may dawal jóge hôpital régional bëgg a arrière xaw ma nu may arrière man ma defe ne woon oto yëpp a yem na ñuy demee ndeke oto bu ne ak façon ba ngay arriéré ma jéem jéem mënuma ma jóge hôpital jëm kër maam alaaji aw cité Lamine wiiri jàmm gën aw ersan yoon wa gudd na de ma dem ba singe ba ba ba ba ba watu stop boobu ngay jàdde ma romb stop bi taxaw ma alkaati bi arrêté ma ni ma nii ma ne ko ñàkk ma nii tax nga jàpp ma ma nii rek laa xam mu ñëw ne ma mais xaw ma la nag lan ma ne ko sëñ bi su ma mënoon arrière doo ma jàpp hôpital laa jógee jëm kër ma laaj ñàkk mën a arrière a tax nga jàpp ma wax ma li wax mu ji yax maa tooñ ndeke man dama ko waroon yëkkati def ci kanam loolu xaw ma ca dara nag man damaa defoon yëpp a ah da ngay def nii rek mu arrière nga arrière ñu waxtaan ma wax ni taalibe yëpp. foofu lañ koy jànge waaye bi mu xoolee oto bi daa gis benn benn kaset mu gis photo Cheikh Seydi Mamadou Mansour Majma al Bahraini sa waajur wu tedd wa waaye ji nuyu ma ni ma ah jël permis ah yaa Idrissa Gay ma ne mu ne ma sëñ bi dama laa soxla yow man sama soxna dama danoo yàgg amuñu doom ñu ni ma soo ma yóbboo ci sëñ Mansour mu am doom su ma ñaanalee dimbali ma man ko noonu nañu wax affaire jàpp yi mënu noo waxatuñu jàpp nañu wax affaire jàpp ma ne ko alxames ñu dem barke si xay ma wallahu shahidun ala ma naqul ma ne ko alxames ñu dem alxames ma yóbbu ko ci borom daara ji sa wajur wu tedd ko borom daara ji dara yeeg bi ma nee tëll ci moom baal ma rek bu kenn way rek ñu baal ma tuuti rek maam lu ma jotal bi ma nee tëll ci moom mu jox ko loxo ma kii mu ne ma Idriss yow kii nga may indi dafa bëgg soxnaam am doom góor la Mouhamadul Mansour lay làmb poosam jox ko xaalis bu bëri ma génn ànd ak moom waaye ji nu génnee ma ne ko waaw mooy soo ma jàppoon mbaa lu may fay est dina ëpp six léegi li la jox moom te ñu cee waxtaan ndax tibb bi dafa rëy lool sëñ Mansour daa tibb lu ëpp lépp ay dix la ma ne ko waaw mu ne ma waay sëñ bi moom kay xanaa ñaan rek ñaan rek man ngaa ah, ñaan mënut ñàkk ndax am na ba pare ñu ñëw ñetti weer lañ ci teg soxnaam jël weer billaahi mi ngi fi soxna si am doom muy góor maa dem ci tudd bi bi ma ñëwee ñu ko nu xale bi di tudd mu ne ma xaw ma ko noo ko tudd baax na ma gëdd mu ne ma sëñ bi noo tudd baax na ma noddu liqaam ni tëf ñu tudde nañ ko Cheikh Sëriñ Mouhamadul Mansour waaye ju yuux ne ma boo ko tudde woon ku dul Sëriñ Mansour ñu dégg ñu ndax dangaa fekk lépp li ma li ma namm ci loolu mooy wax ni nit day am kilifa gëm kilifaam wóolu kilifaam déglu kilifaam si Malick yéen rek la ñuy déglu yéen rek la déglu ci biir ak ci biti wax naa ko yaa ko tudd xool ma dali booy ak Iba Mbaye sama nijaay لنا كل بدة سبابة تراوون أيا أحمد منصور على الخليفة سبعي بابو فأرسلت منصورا لدى كل وجهتي باي ñu bal ma يسورك مني وشق سيدي سبعي بابو ما إمامي أمامي جب قلبي وسيلتي أيام كان نصراني كم تتقائري Sénégal ngeen baal ma gaas lu koy taal ah booy taal gaz safara moo xam noo jëfandikoo safara pétrole boo koy kii lu koy taal xam nga ban safaraa gaaw ci taal réew làmmiñ kàddu kàddu gis nga boo xosee almet ubbi gaz dóor mu ni tëf tàkk bi gën a garaaw mooy kàddu kàddu moo gaaw ci taal réew ba tax yonent bi wax ni man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir falyaqul xayran aw liyasmut boo demee bay wax na nga natt sa wax natt ni sunu ma ko sànnee nu muy mel ma soog koy sànni mu ne boo demee bay wax yonent bi nee na waxal lu baax soo demee ba mënoo wax lu baax yonent bi ni noppi mbokk yi senegal réewu jàmm la réewu teraanga la loolu la ñëpp wax waaye lan moo ñu may jàmm ak teraange jooju mooy Sénégal dañu tàmm waxante lu rafet wa qulu linnaasi xusnan suñu dajee ci ngénte yi daje ci dëj yi daje ci gàmm yi lépp waxante lu rafet ñu am ay référence mooy sunu maam yi sunu maam yi ñu jàng bind bàyyi fi damay wax benn waay ma ni ko actualité ci xutba ba àddina di tukki du génn xutba Seydi Hadji Malick bi atabnuuna ma la taskunuuna wa tajmauuna ma la taakuluuna wa takaathartum xata zurtum almaqabir wa taamaytum kama tasaamamtum an alibadi walzawajir hal waadakum allah fi hadihi daari bilxulul fa nasitum alyawma almashhur kon fa kayfa alxaal إذا نزل الضيف المجتاح وما له قرن إلا الأرواح الله عباد الله lii actualité mën na ko génn coowu suuf li ci réew mi tabax boo dul dëkk alal joo dul lekk mu jaral la xas sa nawle gor yàq deru sa nawle gor pour lan mbokk yi nañu waxante lu rafet yonent bi nee na laa tadxulu jannata xatta tuuminu walan tuuminu xatta taxaabu du ngeen dugg mukk aljanna lu dul da ngeen a gëm du ngeen gëm mukk lu dul da ngeen a bëggante na bëggante yi sincère na sincère bu ñu nangu ñu nekk lii ñuy séentu te mu doon xéewal goo xam ni Sénégal la ko moom nañu ko nañu ko teeroo jàmm gaz beeg pétrole nañu ko teeroo jàmm waay waay gan buy ñëw boo ko teeroowul jàmm du baax gan gan gaa ngi ñëw yegg seegul ñu bëgg indi fitna nañu ko teeroo jàmm nañu teeroo gan gi jàmm nit ñi gën a ñeme Sénégal gën a bëgg Sénégal waaye bu dee réew moo xam ni coow coow suba coow guddi coow ngoon tuumaal sa nawle xas sa nawle gor waxalu ñaaw yooyu rek la fu nu jëm rayante yi xool leen ma li xew nga xam ne bu xale masaana am yonent bi nee bu ñu rey jigéen bu ñu rey xale nit wóolu la def la collaborateur ngay dugg ci oto suy lekk ngeen bokk lekk ngay dugg sam chambre à coucher ñu xëy ñu rey doomam ñu di la ci xalaat crise des valeurs jikko yee yàqu koy wóolu rey nit xattit di ko tey yàllaa ñu gën a bëgg te moo ñu gën a xam te yàlla li mu wax du deñ nañu ko bàyyi xel yonent bi nee maa ngi dem ñaar laa leen bàyyi alquran ak sama sunna ñaar alquran ak sama sunna ku rey nit tey rey kepp àtte bi gën a gaaw rey rey doom benn waay ni ma ma dem ni ma ndax loolu dina dindi rey ji ma ne ko lu ciy sama yoon yàllaa ne bu yàlla waxee qul sami'na wa ata'na bu Idrissa Gay waxee am nga sa xalaat bu Moustapha Gay waxee am nga sa xalaat waaye bu yàlla waxe qisaas maanaam boo dëggee loxo jàmbur nañ dagg rek sa benn loxo nga dagg benn nopp nañu dagg sa benn nopp wal aynu bil ayni wal anfu bil anfi wal udnu bil udni ila axiri nga ba ñu jàmbur ñaar nañu damm benn nga fekk nit ngir sa bakkan ngir alal ni ko xaddi rey mais ku rey nit tëdd ñu bàyyi la fi mais da ngay sonn sax nan la nan la éliminer rek nga noppalu noppalu xam nga ñàkk a rey lu muy dina waral ay doomi kooku mag ay maami maamam naan ko sa maamu maam moo rayoon sama maamu maam mu jël ay revanche ci ay diggante te li koy indi mooy mooy ñàkk dellu ci alquran ak sunna mbokk yi nañu dellu ci alquran ak sunna dellu ci alquran ak sunna li des nag réew mi yàlla fi yàlla doole jàmm ñaan sunu borom ki yàlla dénk réew mi ba saa yu ko soobee yàlla ko yàlla dolli jàppale damay wax ni ñi yor ak ñiy wut ñëpp jàmm doo nga leen arrangé waaye perdant yi dëgg mooy ñun ñii ñun ñii la ñun ñu topp ci riir mu ñu xamul fu ñu jëm ñun ñi ñoo am problème nañu nañu xam fi ni yam te yam fa te noppi maam sa maam Seex Xaaj Axmad Njëgën da daan wax ni boo duggee ci gaal ñaanal gaal ga teer su teeree nga jot sa ëmb waxtu wii may gàmmu fii su jàmm amul woon Cees gii waxtu wii couvre fa am gàmmu gi du am gàmmu gi du bi du fi toog préfet bi du fi toog ci suba ba tey service d'ordre baa ngi yenn yendoog ñun taxaw ci suñu wet pour sécurité waaw ñiy liggéey ci loolu kon lu mën a indi jàmm nañ ci dox rek man de mooy sama message bi nañu dox ci jàmm te wax dëgg as sidqu yahdi ilal birr wal birru yahdi ilal janna nañuy wax dëgg nañuy wax dëgg te nanu siiwal yu rafet yi te bàyyi yu ñaaw yi fukk dinaa ko wax sunu munaa gi passé ma tëj xaaj maa mun a xam nga aj màkk yëpp coowu mun a aj gi yëpp xam nga ban coow fa coow mun a kepp ñuy foto bu jaajee lekk ñu ña ngay dee ñàkk problème mu restauration kepp tam bi mooy problème mu mun a kepp la kepp te lekk am na de xam nga lu amul cest à lu ñu bëgg a lekk moo amul xam nga Sénégal moom jàpp ne ne àdduna bi yëpp ceebu jën bu xonk la ñuy togg ak yu weex ak ay doomadaak sunu bu mbalax maanaam senegal moom jàpp nañ ñu ku togg li nga togg baaxul te boo demee ci ñoom seen seebu ceebu naar yi sa waay ngi sa waay ngi ni Oustaz ñoo koy soog a yóbbu man man ceebu naar yi laay lekk man miin naa ko neex na ma sa waay nag non sa waay yii ceeb moom man yii mënuma ko lekk xanaa saa tey ko mën waaye boo xëy rek mënu mënuma ko ma ah, ceeb bi rek yu weex wi naar yooyu jël galaare ngay lakk def sa boole ci sa waay xëy mos na ma say ceeb bi dafa mel na daal dafa gaaw a digéré ma ah yaa dégg nga miin ko de ma xëyee ni ko dund seen Sénégal yi ñu ma saa yu ma naa ceebu naar ku toggul li ñu togg baaxul su ko defee ñu xam ni bu ñuy yeggee problème mu mun a danañu koo xam ni photo yónnee Facebook. yónnee whatsapp mel na dafa am lu garaaw di tiital ñi ci seen njaboot ne ta délégué général la mu ca mën yëpp def na ko ci billaahi añ la ñëw na ndékki la ñëw dalul ñëw lu heure ba nga ko soxla da ngay bëgg sa kër gi sax da ngay joxe dépense bëgg añ quatorze heures añ seize heures sa kër gi da ngay joxe sa dépense quatorze heures seize heures ngay nga dem koo xam ne ay junne ay millions yu doomu aadama am ñu war a ñëw 15 nga di àddina di tukki mbokk yi maa ngi di ñaan nañuy génn yu rafet te denc yu ñaaw yi suñu mënul a denc lu ñaaw yi nañu génn lu rafet yëpp génn lu ñaaw li ñu xool un ba dix neuf yëpp rafet nga denc neuf yi génn benn ba mel na bii doo ko fa am kon foofu laay yeewee sama carton wax ni nag guddi gi bu ñu demee ci dal yi léegi xéewlu ñu génn si suñu rakk fanaanee gàmm gi waaye maanaam saa boo demee nga ni ministre Aliou Sarr jërëjëf tardewul dara nekk tardewul dara li mu war def lépp matale na madame Seye mii toog sale daf may woo di ma woo ba ko madame Seye bul ma woo ci waxu gàmmu ci mu ne ma sa frère kat moo ni bu dara taatee waaye madame Seye mii toog sale lu baax lu àllin yéene ci bis bi mu yéene lu ko raw kilifa booy ànd ak moom doo ko dar danga koy darlee te noonu la def noonu la madame Sarr mii di def di ñaan sunu boroom boo demee nga ni ko Idrissa nee na na sa xel dal lépp dox na yàlla nañ ko fekke wax déwén su déwén na meññaaw yàlla na dàq ren yàlla bu benn ndox am suñu paree ba ñaan kenn ku ne dem sa dal ñoo waa parcelle yépp nag sant naa leen génn nañ seeni kër joxe ko waa sams prestige waa sams maa ngi leen di sant bay sëriñ sama jarbaat la moom moom sant di sama xarit yaa ngi di sama jigéen waaye maa ngi koy sant di ko ñaanal ci taxawaayam dafa mel na bi ñuy ñaan la sa jigéen di dugg si muy soxna Kaltum si mu Serigne Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes soxna Kaltum mu soxna Aïda mu Alxaaj Abdul mu Serigne ah, Xaaj lu may wax kër maam Asi ah, Malick boobaa tey hmm? kuy njaboot si Xaaj Malick ñii ngi ñëw ñii ngi woote ñaam ngant kar kar kar kon si man jërëjëf rek laa leen di wax fas yéene la sunu bàyyi bëggoon mooy kër Seydi Hadji Malick daf ma ni Idrissa ma ne ko labbayka mu ne ma masala su amee werante man bu kër Alaaji Malick wax laa wax Baye Khalifa daf nañu doom xam nga sa maam dalan def 15 jours yu ne ñooy yendu teg téere yi di wax muy wax ñuy wax dafa mel na sunu cousin Baye Khalifa yàlla yàlla yee sëriñ sama yaay Adja Khadija yi maa koy ñaanal yàlla fanam gudd sunu yaay Adja Fall Fall Adja Dior Njëgal Adja Soxna Watt ak suñu waa kër maam El Hadj Mokhtar Sall yëpp suñu waa kër maam El Hadj Axmed Ndiéguène suñu waa kër maam Alioune Dieye mi jur yabanaante mi mu ñu masaala woon dama ñu ko daal am na werante ma ne ko waaw mu ne ma fu kër El Hadj laa tànn su ëllëgee lu leen yeddee yedd ma doy na ma ndokk ndokk rek lañ cay tegal boo ñëwee naa ko non bàyyi xaalis xam nga lii lii soo waxee ba daaneel. mu la xam nga doom lu lay noppal man masala bi bu xew kër alaaji Malik bu ñu tànn fa laa far bu ëllëgee lu maw da am ma am ca lu ma amul bëgguma bàyyi xalifa gay kër Seydi Alaaji Malik jooju nag ñun njabootu alaaji xalifa amuñu lu dul foofu si Malik jàpp ngeen ñu sagal ngeen ñu wéttali ngeen ñu suñu jigéen a ngi suñu jarbaat kaltum ak ñu wàndal ñëpp te li may ku ñëw jël sa teraanga jox ma mel ni lii lii ñaan la ñuy séntu ci yéen waaye si ma seedeel la ko ndax nag man lam yaskuri naasa lam yaskuri laa sant naa kër yëpp sant sunu bàyyi xalifa bi alaaji Muniiru Njëgën yónnee na fi lu ne ba pare ñaanal ñu sant sunu bàyyi alxaaji Muniiru alxalifa yàlla yàlla dolli wéram waaye nag kër kër Seydi Aji Malick sant naa ñëpp këru diine yi sant naa ñëpp bàyyiwuma kenn Babacar Pascal ma nga nële maa koy ziar di ko sant di ko ñaanal moom itam fa tabarakallahu li des rek mooy ñu yëkkati jotaay bi ñu xam ni guddi gi moom xilaas cent pour cent guddi gi xilaas cent pour cent yàlla nee na yonent bi nee na alaaji Maalik nee na lii mooy sama gàmmu yàlla nee na yonent bi nee na Maalik nee na Seydi Haaji Maalik moomu nag li mu bind te di ko wax nañ ci fanaan ba fayal amul leneen yàlla nee na Maalik nee na xam nga li ñu bëgg a xam lépp ci yonent bi Seydi Hadji Malick wax nañu ko wutiwuñu dara kon lim ñu wax te ñu bëgg koo xam pour topic thème bu ñu bëgg waxtaane ci gàmmu gi El Hadji Malick wax na ci sama rakk tam si gay Gaye jiite gàmmu gi ak ku ka ci fekk sama rakk tam si jiite ko ak ku ci fekk ay rakkam ñoom Mouhamadul Mounir ñoom ñëpp maa ngi leen di sant xaali xale yi koñ bi parcelle bàyyiwuma kenn li ñaan kenn ku ne ñu may ma rek ma ma jéggalu ko sëriñ bi jéggalu ko gouverneur sama sama cousin bi nag préfet sama cousin sama soxna sëriñ cousinam ma dimbali ko jëlal ko ko vraiment préfet amel nga ma cant léegi nag moom mu ne man ma jox ko takku dënn man nag damaa defee ne ku la jëlal fii mu ne yaa war a seet loo ko jox ndax jël yombatul de muy ku baax di ko ñaanal yàlla yàlla dolli jàppale la yàlla yàlla mottali yéene ma bëggoon rek ñu may ma ndigal su dee sëriñ bi may na ko ñaan gi ñuy tëje jotaay bi pour yëkkati ko ba ci kanam ñu may ma sama sëriñ bi toog ci sa wet mu jàng ñaan boobu ñun ñëpp ñu wax amin muy alxaaji muhsin malik Diop nga xam ni alquran ñëpp xamee nañ leen ko waaye nag ma jëlee ko fa ca ndar sama benn rakk bu ñuy wax abdu Fall sëriñ bi ñu tudde ko sëriñ Abdul Aziz Sy Al Amin baayam doonoon kenn ci xadara Seydi Hadji Malick yàlla yàlla yeesal yërmande suñuy kër ñoo taqaloo ca mburu ah, moom Abdul Baaxi ñooy ànd ñoo maase muy yëngu ci mburu yore ay boulanger ubbi Thiès ca Ersan benn boulangerie boulangerie bi nag dafa ñëw ni ma sëriñ bi dama bëgg luy mburu ci gàmmu ci bul ko jënd nañ ko bàyyi ci sama loxo boobaat tey mburu mi dafa ni las ci dëkk bi boulanger bi nu mu tuddati sax boulangerie Samba Fall mooy mburu yooyu nga xam ne boo koy lekk léegi mburu non boulangerie Samba Fall la ne maanaam loo sori sori xoolal jéemal boulangerie Samba Fall rek boo ci nekkee nga woo wax ma li nga yëg Samba Fall bii Thiès foo mën a dëkk si Thiès xoolal nekkee mburu man li ma jaaxal ci mburu mi boo ko reeree ni ngi gaaw a digéré Abdou loo def ci mburu mi mburu moomu daal yàlla ci yàlla doy barke boulangerie Samba Fall boobu daal na waa Thiès yëpp xam ni ku ma bëgg a defal teraanga mburu ci samay demal ma bëgg laa jël sama fax boo fa demee ah préfet nag yàlla dogal nag boulangerie bi sant Fall préfet nag li ma metti mooy li boulangerie bi sant Fall do dama bëggoon mu sant Guèye waaye nag ah ci seen taw la dal kon yàlla fa yàlla dolli barke Abdou loo yaakaar si boulangerie bi ba ibbi ko fii ci dëkk bi yàlla na ci yàlla defal ko la su ko defee sama frère Cheikh Ahmed Tidiane Samb moom itam mi ngi ñëw bu waa kër Baye Alxaaji Cheikh Samb ah moom sama frère la sama xarit Cheikh jërëjëf Ablaye jërëjëf ji na xel dal boo tëddee la xel dëkk bii bàyyi dañ ndax sama bàyyi Alaaji Xalifa da laa sopp def la doomam di tëjoog yow te bi sunu bàyyi demee sunu taw baay bii toog sa xam nañ ni ko def Mouhamadou Moustapha mii xam nañ ñu ko def kon njabootu Baye Khalifa am na nag yow affaire maa ngi leen di wax njabootu Baye Khalifa de kuñ fi ànda de mën nañoo wax am nañu fit te duñuy rax tox na lañuy dem ku mani mani mani Thiès gii laa ni njabootu Baye Khalifa ngay gii xaritoom ñoom moo gën a wóor def noonu ndax ku leen noonu buñ la songee di nga daw ndax loo nañ koo muñ ñun lu nit yor mën nañ ko te ku ñu àndal dina la bàyyi xel te dara ñoruñu lu dul daara te daara yooyu ñu ñor dañoo gis ni mu la ñoree ñun daara rek ñu ñor bëgguñu daara wutuñu daara ñun li ñu sunu bàyyi bàyyi képp la ñu soxla mooy daara taaw ba ci caat ñëpp daara alxuraan la yor taaw ba ci caat góor ak jigéen. ñépp daara alxuraan wax naa daaw ni sama baay bi muy faatu daf ñu woo ni ñu su ma demee billaahi talaata la ma ko wax tafsir a ngi toog balaa ji xalifa gay samaam talaata la ma wax tafsir a ngi toog tafsir ni ko waaw pàpp yow ni ngeen danga leen di yóbbu mag ah, ndax doo wax ñan la mu ni ko wax ko jot na waaye sa waay mii moo ma tardé Idrissa ndax secrétaire bi moo ñëwul pour ma werse man ñi may yóbbu ñett lañu pare naa gortil seen di imam tataset pap booy di jarbaatam xaali Ousmane Gueye di doomam muy talaata mu ni ko laaj ko jot na ndax ñaan naa sama boroom dem te juboo nañ ci talaata mu ni doom xam nga lu ma leen di su ma fi jógee naa am ñeenti kaamil lu ca tegu doy na benn bi yéen ñii di samay doom yu góor na ngeen ko jàng bu leen kenn rax benn bi yéen ñii di samay doom yu jigéen bu leen kenn rax benn bi yéen ñii di samay seet yu góor yi sama yi sama doom yu jigéen jur mbaa sama doom yu góor benn bi samay seet yu jigéen yi samay doom yu góor wala yu jigéen nañ ko jàng mu ne ma bu ñeenti kaamil yi jàllee lu ci dolli ko doy doy na su ma xëyee faatu naa yendu ji su ma gontee naa fanaani kër Seydil Hadji Malick ku ñëw na ma jullee bu leen ma xaaree kenn su heure jullee jotee te gisu leen kenn yéen ñii ma jur ku taxaw jullee baax na ñu nag summa amaatahu fa aqbarahu talaata la ñu ko wax après timis mercredi ma war a voyage ma ni tafsir damay fomm parce que bàyyi xaalis daawul waxe nii bàyyil ma toog ba beneen semaine jeudi fajar mu làqu génn àdduna onze heures baaba Babacar si Abdoul Aziz moo ko jullee njabootu Seydi Aji Mali yëpp teew sunu bàyyi alaaji Muniru ne xam naa pas-pasu alaaji xalifa ci kër Seydi Aji Mali ñu ko jëlal mu jullee sunu bàyyi boobu lim ñu bàyyil daara la daf ñu ñu bàyyi lu ma leen lu dul daara ku gëm daara fonk daara loo bëgg ci àdduna di ko am te incha allah loo bëgg àllaaxira di nga ko am kon daara yooyu ñu am ñi lu siy jàppale gëm ko bëgg ko daan leen bàyyi xel te Ablaye mii ci la bokk Ablaye mii ci la bokk ñun ñëpp ci loolu rek lañ kon fa tabarakallahu maa ngi leen di sant Ousseynou xaaji Ousseynou Diouf bu alaaji Saxiir Diouf kii bàyyam alaaji ma njëg lañ ko tudde Ousseynou moom suma suma suma frère la sama xarit la wasalu jërëjëf yàlla yàlla barkeel yàlla yàlla fay bu ko defee rek ñu doyloo ñaan gi si lu dëng ci kàddu gi rek ngeen baal ma damaa mënta tudd lana kulla shay'in min ibadika mimma fi barrika wa bahrika wa jawbika hatta la yakuna fi hatta la yakuna shay mutaharrik aw sakitun samitun aw naatiqun illa